tax président li ko dal mu dal ko moo tax il doit revoir son entourage. Mm-hmm. Ousmane ko déclaré na candidature am donc yàggul. fan yi ñu fan yi ñu génn la mu jàkkaarloo ak presse bi. Mm-hmm. ñu bëri jàpp ne déclaration boobu. Mm-hmm. moom am na lu ne ci ginnaaw am na lu am na lu ngeen di waaj. waaw Benno Bokk Yaakaar am na lu ñuy wax ci ci ci moom c'est-à-dire moom moo ko wax ah, même démb sax dee nañ communiqué waa Pastef <laughs> ne def ngeen euh, yéen def ngeen réunion ñoom def ne waa benn Benno Bokk def neen réunion ah, pour euh, euh, maanaam fexe ba nga xam ne si ni Ousmane Sonko di dem ci élection présidentielle 2024 yi man looy ko nooy tontu ci loolu man li ma ciy tontu mooy il faut arrêter la manipulation dans la vie il faut être responsable jàpp ne le papa de manipulateurs nit da ah ngay dëggu nit da ngay sincère lenn naa la ko wax. Mm. je fais pas partie de ceux-là qui ont eu peur de Ousmane Sonko. non non loin de là mënul nekk góor gi dee na suul nañ ko jamonoy Wade moo jënoon a métti. Mm. ok moom c' est un poussin politique. pourquoi poussin politique parce que c' est un nouveau-né politique. ok dire mon idée par rapport à Ousmane Sonko aw ma ci benn jeune mais quand même aujourd'hui je vais le faire avec élégance et je vais adresser un message très fort à monsieur Ousmane sonk gis nga sàq mi te sexoo dara sa bopp ngay nax ok on peut tromper le peuple une fois deux fois mais ça s'arrête la dans la vie il faut être responsable gis nga nit bu fekkee da nga nekk boroom kër dafa am loo xamante ne da nga ko war a jombale sa bopp mhm. nit ki bu fekkee da nga nekk koo xamante ne nii dafa am ay ndaw yu nekk sa ginnaaw am ci yow yaakaar am ci yow ce qu'on appelle vraiment ëllëg un un espoir dafa am noo xamante ne da ko war a doxe da ko war a waxe mm-hmm. c'est pas permis à tout le monde nga def lu la neex quelque que soit ce degré moo xam muy xam-xam moo xam muy am-am moo xam muy lu mu mën a doon ci àdduna la liberté elle-même n'existe pas nit ki si sa wàllu bopp dafa am lu bari danga ko war a jombale sa bopp xam nga li naan wiri wiri jaare ndaare tey ji tu es appelé à être ou à aspirer d'être le papa de Sénégalais mooy le père de la nation de Sénégalais xam nga dañ ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ yow mi nga xamante ni bëgg nga jiite réew mi boo jiitee réew mi mooy tu es le père de la nation avant ngay jiite réew mi nag danga war a am jikko boobu avant ngay jiite réew mi da nga war a am yërmande avant ngay jiite réew mi da nga war a am respect boobu ci ñi nga xamante ni mooy sa njaboot Ousmane Sonko posture bu mu nekk tey dafa war a jàpp ni Sénégal njabootam la y a une fille qui depuis deux ans est emprisonnée chez elle mënul dem fenn moom mi nga xamante ne ni il aspire à devenir le papa des Sénégalais le père de la nation est-ce que war na accepter xale bu jigéen boobu depuis deux ans ñu tëj ko mënul dem fenn où se trouve son humanisme où se trouve sa responsabilité àdduna ku dee yaax sa bàmmeel moi je cherche pas à le juger nee naa aujourd'hui je vais essayer de parler avec Ousmane Sonko avec plus d'élégance avec une euh, avec plus mais tamit affaire boobu li ci am li ci am yëpp. même ma daaneel s'il te plaît voilà rapidement même ma daaneel parce que c'est trop sensible. Mhm. parce que bu fekkee sa sœur la ku mu nekkoon sa sœur bu mu bokkal ndey ak baay. Mhm. Adji Sarr di dund actuellement li mu nekk di dund ni nan ngay réagir Ousmane Sonko bu fekkoon sëram bu mu bokkal ndey ak baay la def ni ñu def Adji Sarr ni moom Ousmane Sonko nan lay réagir. ça lance un message solennel à Ousmane sonk parce que xam naa ni dina suivre émission donc Ousmane Sonko Adji Sarr bu fekkoon sa sœur la bo boo boo bokkal ndey ak baay ñu def ko ni ko def nii bu boobaa nan ngay réagir ok wiir wiir yi jaare ndaare dafa am loo xamante ne nii jarul ñu koy anticiper ok mais nag affaire bi am na am na politique ah. non mais parce que bu loolu moom moo indi. mais ñaari sénégalais am ak ñaari citoyen yi am. bu dee dañuy waxante ñu ñu nee naa la ku dee benn benn aspect boo xam si gars yi bëgg nañ ci jaaree. pour faagaagal ko politisé. bul wax pour faagaagal ko nee naa la kuy wax. da nga war a xool sa bàmmeel. Mm-hmm. kuy wax da nga war a wax dëgg te yàlla tax parce que ku dee ku ne. Mm-hmm. yow rek ak sa bàmmeel. usu bi muy dem foofu kenn yëgu ko man yëguma ko yow yëgoo ko. da nga xëy benn jour rek ñu dégg Adji Sarr Adji Sarr du dëgg. mais attends loolu bi mu amee. usul lan yi xew yëpp yi ciy dégg ci biir tamit loxo yi ci dugg. may ma may ma ah? li ci xew yëpp. yi xew loxo yi ciy dugg. may ma may ma s'il te plaît s'il te plaît li ci xew yëpp bi mu amee coow li jóg. Hmm. Ousmane lan la lan la njëkk a def dem ci page Facebook am. Hmm. bind fa suite boo te xaw ma fan la nekk mosuma fa dem xamuma fa. quelque temps après ñu gis après mu effacé ko doo leen wax ci loolu yéen les journalistes El Hadj Malick je pense El Hadj mooy ndawam mi El Malick maître Talla ah, je pense moom moo génn woon kaamil bi di waat. billaahi wallaahi Ousmane Sonko musul dem Sweet Beauté yéen les journalistes doo leen wax ci loolu Ousmane a manti El Hadj a menti El Malick je pense il manti menti l'avocat maître Tall il a manti lii gën a graaw mooy dafa blasphémer parce que il a utilisé le Coran mais vous les journalistes prenez vos responsabilités dites la vérité. mais ñun Ousmane bi mu ñëwee. mais ñun non non non non. je suis désolé dire la vérité. je je du ñu nekk fa ñun nekkuma fa woon la nekkuma fa woon la vérité la vérité c'est c'est la justice. de la vérité attends il y a eu ñu dem pour procès dem procès mais mënuma. mon frère mon frère mon frère mon frère. vérité bi mooy lan non bàyyi nag red black mais ma dañuy waxtaan bàyyi di attaqué journaliste yi tamit mais attends. bàyyi di attaqué journaliste dama gis dama gis aussi l'information. aussi dañuy laaj dëgg bi dañuy laaj dëgg bi yéen ñëpp xam ngeen ko. non xamu dëgg xaw ma man waxuma Ousmane xaw ma dëgg déglu ma. voilà benn affaire dama la koy wax. Mhm. coow li bi mu njëkkee jib. Mhm. Ousmane dafa bind ci page am ne fa dem. il a menti te mensonge boobu yéen xam ngeen ko. non man gisuma poste boobu waa këram mooy son avocat la te mu yoroon kaamil bi xaw ma ci ban émission di toog di waat naan Ousmane Sonko mosu fa dem il a menti loolu xam ngeen ko Ousmane certainement avocat mi ñoo waxtaan ak moom ne ko saa waay effacer affaire bi mu effacer poste bi mais après loolu lan la wax woy dem naa fa mais kañ nga fa dem ci biir biir couvre-feu couvre-feu boo xamante ne nii aujourd'hui am na feebar bu am moment bi Ousmane di dem. Sweet Beauté mais moment boobu le président Macky Sall mu ngi wër àdduna bi pour wut ay vaccin pour aar askan bi pour liggéey pour njaboot gi ok xam lan la quand tu es man duma feebar dawalal sama bopp oto àndumaax garde corps àndumaax chauffeur àndumaax kenn yooyu ay tappale la Ousmane dafa tappale dafa am loo xamante ne nii nag am na 14 personnes sénégalais yoo xam ne dañ see dee mais 14 jours yooyu dee pour le respect de leur âme pour le repos éternel pour le repo en paix de leur âme mm. Ousmane dafa war a leeral pourquoi 14 nit ñooñu ñu dee vous les journalistes pourquoi doo leen wax loolu. Euh, justice moo koy leeral et vous devez demander à Ousmane Sonko d'aller se présenter et laver son honneur. non non non si justice moo koy woo usman Sonko du dem ne damay du dem di wuy ji te woowuñu xam nga Ousmane xam na ne Ousmane mu dem wuy ji Ousmane xam na ne nee na bëgg na procès am bëgg na affaire bi leer nañ ko woo. bon xam nga bu bëggee procès am bu bëggee affaire yi leer. moom bu dee góor la. Mhm. bu dee géer la. Mhm. parce que je connais sa famille. Mhm. man am naa l'un de mes meilleurs amis. ce sont cousins. je connais aussi l'une de ses sœurs nabu Sonko. sama xarit la depuis plus d'une dizaine d'années avant Ousmane sonk di dugg ci politique. c'est une famille d'honneur. fameem nag ñu am honneur lañ te Ousmane Sonko ba mu yàq wayu waa fameem ok avant muy demander ak di tappale nee na bokkul ci tappale yi. may ma may nee na nee na bokkul ci tappale yi man du du man maay oote. la la wax. ok man du man maay oote. waaw la justice mais Ousmane bu dul dara sama mbokk Casamance la. Mhm. parce que man Casamance laa yoro sama cycle yëpp fa laa ko defee et je parle couramment la joolaa li jame ku joola ok mhm. man maa jën a dégg sax joolaa ko Ousmane ok donc gis nga tey ji Ousmane avant muy laaj naan dama bëgg a nekk candidat dafa am lu xew bu mu ko jëlale avant de dire que man je suis candidat pour 2024 na ñaan yàlla ne je demande solennellement à ce man sama procès ñu taxawal ko man ma laave sama honneur parce que xale bu jigéen bii bu fekkoon man ax moom ñoo bokk ndey ak baay du ma nangu depuis ñu tëj ko këram mu mel ni ku nekk